asalaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jàmm Sen Sport 221 UEFA Champions League dañuy dooree ak match yi nga xam ne xewoon na ci ngoonu tey ji équipe yi nga xam ne jot nañu seen ticket ngir qualifié xam ngeen ne ci dernière journée la ñu nekk ci phase poule am na ci équipe yoo xam ne tey ji jot nañu seen ticket mu des nag ñaari place ñaari place képp moo des ñu dal di complété li nga xamante ni mooy round of 16 boobule. léegi nag bu ñu xoolee li nga xam ne mooy match yi amoon dañu tàmbale ci résultat yi FC Séville moom Lens da koo dóor tey ji ñaari bal ci dara jamono bi moom FC Séville sax éliminé nañ ko toog na voilà bokkatul ci benn compétition ci Europe même Europa League sax mënatu fa dem. ñaari bal ci benn voilà lañ ko dal di gagné waaye itam ñu gis beneen match bi nga xamante ni ñii di Arsenal doon nañ ko am seen diggante ak PSV Eindhoven mu doon match bu neexoon voilà ñii di dañoo match ñu seen diggante ak sax day mën nañoo gis ne tey taxawaay bu am solo la amoon ñi mu woon lool ñii waa Arsenal voilà dañoo témboo kon ni ñu leen xamee benn ak benn ñoom ñaar ñëpp qualifié nañoo léegi ci classement yi voilà wala bokk ñu jox leen li nga xam ne mooy équipe yi nga xam dèjà qualifié nañu rek yem ci ci tënk kon Arsenal ak ñii di waa PSV dal dinañu jàll Manchester United Bayern Munich moo ko fekk dëkkam dal di koy dóor 1-0 moom mi nga xam ne tey jii la doon dundee yaakaar ngir sax mën a dégg maam sauver honneur am même bu fekkente ne mënul jàll ci poulam sax mu dem Europa League Manchester xam nga fan la mujjee mooy dernier la daal di jël gannaaw bi ñu ko dóoree tey jile voilà foofu la ci Old Trafford Bayern Munich nag jamono bi xam ngeen ne moom qualifié woon na ba noppi da doon jàkkal rek li nga xamante ni mooy toogaam ci bopp classement bi boo na ko ci kanamu Manchester kon Manchester United li leen dese mooy concentré wu xëy na ci English Premier League ngir xool nañuy naka la ñuy def ba def li nga xamante ne mooy saison bu baax ci championnat waye bu dee Europe mom paré nañu ci ndax da lañ jël comme ni leen ko waxé Copenhague mo dal di jël benen place bi ci ak Bayern Munich tay ji dafa dal di door Galatasaray 1-0 benn bal ci dara bobu mo jéxal jonganté gi ñom ñu dal di qualifier kon Galatasaray fimni ni mënutul jall ci li nga xamné ne round of 16 ndax Bayern ak Copenhague ñoy and jall ci li nga xamanté moy pool bobu lé Napoli mom dafa dal di gagné ji lé ñi di wa Braga 2-0 Victor Osimhen bi nga xamné ne ni ki démb lañ ko doon jox lolu nga xamné moy mooy Ballon d'Or africaine moom nag tey ji dafa dal di ñew marqué ci match bobu nga xamné Napoli am nañu ko ba dal di sax baax ndax loolu moo leen jox seen ticket ñu dal di qualifié fekk ji nañ Real Madrid bi nga xam ne moom dèjà jotoon na ticketam ci poule boobu la kon ñoom ñaar ñoo dal ànd Napoli ak Real Madrid ñoo ànd qualifié ci li nga xam ne mooy poule boobu 2-0 la ñu dal Braga Real Madrid googu la tey ji dal di ñii di Union Berlin 3 buts à loolu nag jamono bi may ko voilà mu am lu toll ci dégg nga maam 6 victoire ci 6 match yoo xam ne dal dina koy joué kon match sam yëpp da ko gagné Real Madrid amul benn ne am na ko voilà defet ma ko 6 match 18 points la daal di am ci li nga xam ne mooy poulam tam jamono bi nag bu ñu xoolee match bi nga xamante ne am nañ ko tey jile ñi waa Union Berlin dañu leen jiitu woon voilà Union Berlin mën nañu wax ne dafa amoon li nga xam ne mooy taxawaay bu am solo bëggoon dóor ñi waa Real Madrid gannaaw bi nga xam ne ñoom ñoo njëkkoon marqué ci li nga xam ne mooy 46 minutes Real Madrid dal di dabé ba nopi di nga maam dal di gagné match bi ndax amal ab doublé Dani Ceballos marqué bit bi ci des voilà lool mo len jox victoire kon tey jilé comme ni ngeen ko xamé 18 points lañu dal di am ñi di wa Real Sociedad dañu match ni sen digënté ak ñi di wa Inter de Milan ñom ñaar yi nga xamné dañu dañ doon xëccoo bopp classement bi ku nekk jàpp ne fa wara tok match ni lañu def waye nak biñu match ni Real Sociedad moy wéy di des ci bopp classement bi kon mom mo nekk ci kaw Inter moy jël premier ci li nga xamanté moy mooy poule boobulee waaye ñi nga xamanté ñu wa Benfica dal di door ñi di wa Salzburg donte na ñoom xam ngeen ne ñoom toog nañu voilà ndax Real Sociedad ak ñi waa Inter ñoo jàll waa Benfica tey ji dafa dal di wulli wulli am solo ñi waa Salzburg 3 buts à loolu mooy match yi nga xamante ne amoon na tey jile Bayern na mënuñ nag nekk équipe boo xam ne équipe bu mën phase de poule la ndax kat bu ñu xoolee depuis 2017 ba léegi amul kenn koo xam ne daal dina koy dóor ci phase de poule voilà match bi mu mujjoon ñàkk ci li nga xamante ne mooy euh, phase de ngi nekkoon 2017 digganteem ak ñi di waa Paris Saint-Germain la woon Paris Saint-Germain moo ko dooroon 3 kenn mënalu ko ci lenn moom daal 40 match ngi ne yoo xam ne ma ngi koy joué ci poulam voilà di am victoire wala bokk muy am match nul mais dóor moom kenn dafa ko ko ñoom waa Bayern Munich depuis match maanaam depuis ba léegi bu ñu xoolee nag li nga xam ne mooy équipe bi nga xam ne dèjà qualifié nañu mu ngi ni Manchester City Inter de Milan Lazio PSV Real Madrid Atlético de Madrid FC Barcelone Real Sociedad Borussia Dortmund Bayern Munich Leipzig Arsenal kon tey ji Napoli ak Copenhague ñoo dal di jot li nga xam ne mooy seen ticket ndax yeneen équipe yi ñoom dèjà qualifié woon nañu ñeent place moo desoon Napoli ak Copenhague jël nañu ñaari mu des ñaari place ñaari place yooyu suba dina leer ndax suba la ñuy jëkkale li nga xamante ne moo aj ci sixième journée bi ndax ñii di waa Paris Saint-Germain Newcastle United ak AC Milan ñooy xëccoo benn place bi kenn ci ñoom rek ka mën a jël benn place bi beneen place bi nag diggante Porto ak Shakhtar Donetsk lay doon maanaam kenn ci ñoom ñaar moo koy jël lii mooy li nga xamante ni voilà moo des ci lii di phase de poule yi ngir ñu daal di koy matal te suba la lépp di leer incha allah su ko defee ñu daal di jublu ci leneen muy li nga xam ne mooy second round bi. kon 14 ci 16 yi nga xamante ne soxla nañu leen dèjà qualifié nañu mu des ñaar wax nañu leen ñi nga xamante ne ñoo ko war a mën a xëccoo ba daal di jot ci poste place yooyu lay Manchester United ci match boobu nga xam ne am nañ ko tey jëlee yemuñ ci jël defet rek waaye seen défenseur bi di Harry Maguire dafa dal di am blessure moom mi nga xam ne jamono bi gisoon nañu ne amoon na place am dal di teg Raphael Varane ci banc bi di jouer di titulaire di def ay match yu baax ba gis ne novembre bi sax moo nekkoon meilleur joueur ci English Premier League jamono bi mel leen ni nag mbir mi taggatem bi nag ndax bu ñu xoolee jàpp nañ ne dina toog ab diir ndax xamaguñu gaañu gaañu bi maanaam ñaata la ko jël xëy da loolu dinañ ci daal di dellusiwaat waaye nag bu fekkente ne xëy na yàgg na tuuti mën na ñàkk place te nee mooy ñaar fukkeelu jour ak juróom ci équipe boobu di Manchester United boo am blessure bi ñu tàmbalee saison bi ak léegi voilà number 25 moom kii di euh, Harry Maguire voilà kon fekk ji ñi nga xamante ne dèjà blessé woon nañu donte ne am nañu amal seen retour waaye jamono dafay ñëwaat voilà ci li nga xamante ne mooy équipe bi tey ji sax titulaire na waaye bu Maguire demee voilà foo mu dal am gën a am chance ngir war a mën a titulaire ak équipe boobule ki nga xamante ni nag mooy Martial moom tam joueur Manchester United la kay di xibaar mu ngi xam ne ne jamono bi jàpp nañ ne Amanda dafa dal di te équipe bi nga xamante ni nag mooy Al Ettifaq nekk ci Arabie Saoudite nga xam ne kii di Steven Gerrard moo leen di tàggat jamono bi pare nañoo teg 10 millions d'euros ci taabal ji ngir dal di signé ki nga xamante ne mooy voilà euh, Anthony Martial jëlee ko foofale ca Manchester Chelsea football club nag jamono bi ñoom itam am na ci joueurs yoo xam dèjà bëgg nañ leen wàññi voilà su ko defee ñu mën a renforcer yeneen secteurs yi bokk na ci ki nga xamante mooy Gallagher Conor Gallagher nee nañu de janvier bi la day ki nga xam ne mooy Mauricio Pochettino dina def pexe ngir tàqale ko ak su ko defee ñu saam ko ci marché bi jaay ko koppari ñu jëfandikoo ko daal di yeneen postes yi ne muñ ci loolu ñi nga xamante ñoo di waxoon nañ leen ko fi yàggul trop te mooy capitaine équipe boobu de Chelsea nekk élément bu am solo waaye de nee nañu fi mu ne daal février wala mars la ñuy séntu ne amaan dina amal retouram moom kii di Reece James. Malang Sarr Malang Sarr nag moom jamono bii dañu jàpp ne dégg maam dina dem foofu foofule ci Turquie ci club bi nga xamante ne mooy Besiktas Besiktas daal jamono bi ñu ngi defi pexe ngir dégg maam signé nga xamante ne mooy Malang Sarr mi nga xamante ni at yi mu goon ko fi fu ne nag ko fi Porto abla moom daal depuis mu ñëw Chelsea amul chance voilà ngir war a mën a titulaire ak équipe boobule am place sax di jouer moom nekk na loo xamante ne jafe-jafem loolu moom kii di Malang jàpp nañ daal dina fa dal di jógee Besiktas nag nekk ci Turquie jamono bi ñu ngi defi pexe ngir signé ko bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi Sergio Ramos tey ji dafa marqué bit voilà ci match bi nga xam ne ñoom doon nañ ko am seen diggante ak ñi di waa Lens Séville ak Lens la woon bit bi nag bi ma ko dugalee looloo ko may fi mu moo nekk dégg nga maam défenseur bu ëpp lu mu marqué ay bit 17 bit dal na koy dugal moom kii di Sergio Ramos voilà ci li nga xam ne mooy Ligue des Champions képp loolu nag amul beneen défenseur boo xam ne mos na ko def voilà kon loolu da koy dugal ci histoire ndax na marqué li nga xam ne mooy ay bit voilà rawatina équipe boobu di Real Madrid tey jii mu dal di koy def ak di waa FC Nampalys mendi l'international sénégalais mom nak ci match bobu la dafa dal di am li nga xamne moy gañu gañu mom jékkal wol match bi de dañ ko génnee ndax gañu gañu bu mu dal di am te fi mu baxul dé té bu fekkente ne la démé li lèr moy kon kan bi dina ko dal di wuute té xam ngeen Nampalys joueur la bo xam dañ ko soxla kan bi fimni ni nak ay bes ay képp ci dess ay semaine voilà manam yagatul dara ñu dal di sobu ci li nga xamanté moy Coupe d'Afrique mi nak jamono bi li nga xam mom la wone tay jilé biñu ko génnee ak fi mu japp non da fay wone dal voilà li xéñ moy kan ba amana du ci dal di dem en tout cas lo ci mëna dégg dinañu wéy di topp mbir moomule waaye liy xeeñ neexul benn yoon Allemagne moom dañuy neexal Toni Kroos ngir mu dal delluwaat Toni Kroos bi nga xam ne moom waxi tekki daal yi lay wax maanaam bàyyi football loolu mooy li nga xam ne mooy yéeneem bu saison bi jeexee ak équipe boobu di Real Madrid mu del di bàyyi football carrément waaye nag jamono bi ñu ngi joué ay matchs amicaux mais gisuñu lenn lu ñu wane daal xel ay défaite ak i match nul daal jamono bi ñu ngi koy jël voilà Toni Kroos bi nga xamante ni nekkoon na fa ci jamono ba tekki woon daal yi bu yàgg na dafay may booy yoo xam ne ñu ngi koy def intermédiaire la nag voilà ngir ñoo xamante ni daal mën nañ ci dox dégg nga maam ay tànk jàmm ba Toni Kroos war a mën a ñëw dégg nga maam defaat beneen dégg euh, ak équipe boobu di Germany voilà su ko defee mu daal di leen jàppale ci li nga xamante ni mooy euro boobu nga xam ne jamono bi ñoo koy dalal ci seen dëkk te équipe bi daal jamono bi taxawaay bi ñuy xaar ci moom amagu ko English Premier League bi kayit xibaar yi xam la nañu ne kat dafa am ay club yoo xamante ne jamono bi wote nañu voilà ñu ngir ñu dal di li nga xamante ni mooy joueurs yi seen at yi ñuy signé ak yi maanaam dafay yàgg daf ci am ñoo xam ne maanaam contrat yi ñuy signé dafay gudd lool léegi nag li ne mooy vote yi li mu wane mooy dañuy wàññi li nga xamante ni mooy bépp joueur boo xam ne signé nañu ko mënoo signé contrat bu romb 5 ans juróomi at daal mooy li nga xam ne mooy contrat bi gën a dañ koy limiter voilà ndax bu ngeen bàyyi li nga xamante ne mooy joueurs yi mujjee signé surtout diggante daaw ak ren am na ci ñoo xamante at yu baree bari la ñuy signé man nañ ci japp équipe bu mel Chelsea football club digënté daaw ak ren xam ngeen ne signé na ay gone yu bari mais boy xol ay juroom ñaari at ay juroom ñetti at rek ngay dégg Robert Sanchez bi nga xam moy sen gardien bu bees bi gis ngeen juroom ñaari at la dal di signé Benoît Badiashile bi ñi signé Monaco défenseur bi 7 ans la dal di signé moom itam juróom-ñaari at Malo Gusto signé 7 ans moy Moïse Caicedo mom 8 ans la dal di signé manam juroom ñetti at Romeo Lavia mom dal di signé moom itam juróom-ñaari at ki nga xam moy Ogu Chukwu Ogo Chukwu mom itam signé lu toll ci 7 ans Enzo Fernandez huit ans la dal di signé juróom-ñetti at Christopher Nkunku moom moo ci signé contrat bi gën gàtt te 6 la juróom-ñetti at juróom-benn at te moo ci gën a Cole Palmer 7 la dal di signé ki nga xam ne mooy Mikal Modric 7 ans kii di Nicolas Jackson moom itam daal di signé 7 ans nag nekk loo xam ne jamono bi bu ñu ko bàyyee noonu mu dem dina doy waar lool moo tax nag fi mu nii nee daal dañuy wote mbir moomu wote nañu ko maanaam dañuy wàññi li nga